waaw dañ ci am des fois jafe-jafe. jafe-jafe mooy des fois ñu jël xaalis. niñ koy niñ koy kiiwee duñ ko delloo comme ni mu waree. parce que dañ dañ koy kii seen loxo daal day seey ci seen loxo. parce que dañu bëgg kuñ jox xaalis dag pour liggéey la ñu la joxee boo liggéeyee nga delloo pour ñu mun a jël jox ñeneen. mais suñ leen joxee bu fekkente ne dañ la jox nga jël loo xam ne da nga ko def sa bopp du arrangé nit ñi. ñu gën a dooleel suñu suñu partenaires yi. koppar yi ñu war a joxe. pour jigéen ñi suqaliku ñu gën a gisaguñu ko. gouvernement bi moo ñu war a dimbale. Eh, ñi ñu yor ñoom ñu ngi ñuy dimbale ñu ngi daanoo ko jóg di ñu jàppale donc buñ si amoon li ñu gënal gouvernement bi ñëw dool dooleel ñu ñu am lu ñu jën tamit ñun suñu njiit yi am lu ñu kii ñu dimbale ko. financement ci nguur gi moom ñëwagul te ñun bari nañu. kenn dimbaleeguñu dañoo bëggoon ñu jàppale ñu jox ñu financement boo xam ni day nekk financement boo xam du am intérêt première ndax mu gën a yomb ñu demaat jox ñu financement boo xam ni financement boo xam da nga koy jël ngir dimbal doo fay. bëgg a wutalaat ay kër loolu yëpp buñ ko amee xam nga day suñu yëpp day gën a yomb day gën a neex parce que ñu nekk fii ay banlieue la ñu diggante Pikine Guédiawaye banlieue la te kuy dimbali war ngaa dimbali banlieue. nag bu ñuy wax économie solidaire di wax microfinance nag pauvreté wax. wax nag sama classe bi nga xam ne dañoo yor ay costume yor ay ay 4x4 toog ca kanamu seeni bureau ya fële di def ay concept rek te xamuñu leen ci suuf. boo defaree produit bu baax ca kaw conceptualiser ko ci ay bureau climatisé ci ay 4 4 boo ko wàccee si suuf te ñi nga ko waroon conceptualiser defoo ko da ngay ñàkk